Saliou kon day mel ni bisu ci ñun ah. ngir ñu gën see préparé ci gën see waajal màggal 2022 saminillahu inda jeewali iblisa isnaat daytaho biyaawali aya saminillahu inda jeewali bégal ba dëppi ndabam ba fi kuy tal bëru si ndawal fooy fooy añee njum te gënul rëy ku jëfelile rawatina toog di xaaru añ koy fooy mani ki ñaak suurul bu ñee deewee ko taxaree gi yee yaaw waa wala way goreel waa waa waay lamin ca kaw te doyloo waawaa te doy aca medunu ki ñaak suurul bu ñee deewee du ko taxareeg yee yaaw waawalaa way goreel waaw faa del ca kaw te doyloo waa te doyloo waa ku ko réewul wul du fësal may way da koy xumtoo Chico TV yow ni yee waay Sénégal 24 te doyloo waa waaw wallaahi sàkku win mbir dana xañe aw ami diir ko jam ko fa mu feeñee mani fii la feeñee emporo fii la feeñee waa walaay taataat nawet la gën aw naaj kuy fët di weer ngir am ndam ngir waa walaay jamono bu dee dox dangay dox jéem ànd ak moom nekkal aaju war wax ko ca kaw Serigne Saliou moo aye kuy xar mu fegal nga añ dootoo soo war faa del ca kaw ni dootoo soo Lamine dootoo soo lay lay la man ki ma doon seet ba ma ko gisee la noppaloo lool la la ki ma doon seet ko gisee la noppaloo lool seet ba ma ko nga doon seet ba nga ko gisee nga noppaloo lool ma xamatuma namatuma feneen fu dul feet Lamine leen fu dul feen Sëriñ Tuubaa sa coono yi géej gi moo waral tey bane xub jaam ñeewe Sëriñ Tuubaa sa coono yi géej waa waral tey bane xul ko Sëriñ Tuubaa sa coono yi géej gi moo xub jaam ñeewe sa coono yi géej moo waral tey bànneexub jaam ñi yaaw waa wala waay goreel waa waa lamin ca kaw te doyloo waa waa te doy aca medunu ki ñaak suurul bu ñee deewe du ko taxaree gi yaaw waa wala waay goreel waa waay faa del ca kaw te doyloo waa te doyloo waa ku goreewul wul du fësal may way koy xumtoo waa Chico TV yow ni yee waay Sénégal 24 te doyloo waa waa waa wallaahi sàkku win mbir dana xañe aw amiin diir ko jam ko fa mu feeñe mani fii la feeñe emporo fii la feeñe waaw walaay taataan nawet la gën aw naaj kuy fóot di weer ngir am ndam ngir waaw walaay jamono bu dee dox dangay dox jéem ànd ak moom nekkal aaju war wax ko ca kaw Sëriñ Saaliw moo aye kuy xaar mu fegal nga añ dootoo soo war Fadel ca kaw ni dootoo soo Lamin dootoo soo war lay lay la man ki ma doon seet ba ma ko gisee la noppaloo lay lay la la man ki ma doon seet ba ma ko gisee la noppaloo ba ma ko gisee la Moodu ca kaw yow ki nga doon seet ba nga ko gisee nga allahumma salli ala sayyidina muhammadin alfaatihi lima uhliqa wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqq bil haqq wal haadi ila siraatikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaaril azimi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun wa salaamun fi dunya wal akhirati walhamdulillahi rabbil alamin barkib sëriñ sa ayasamillahu inda jawali iblisa isna daytahu biyawali أيسمني الله عند جوالي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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax